aywa euh, Marcel euh, mhm. tey un jour une actu ñu wax nag li xew ci marché bi ak yokk gi ñu ne dañ ko yokk fan yi euh, lu jëm ci leen askan wi di dundee te mhm. bi ci mujjee nag wala boog prétexte mooy njëgu suukar bi te gis nañ ne quotidien yi semaine dernière doon nañ ci waxtaan c'est ça c'est ça soxna Fadi lu mel ni Sud Quotidien wax na ci jeudi bi passé donc daal di wax rek ne ne hausse unilatérale des prix du sucre moom la ñu daal di observé ci marché bi du ménage et marché dans le désarroi mm-hmm. donc euh, ñu euh, gestu euh, xool naka la daal di demee ndaxte arrêté ministériel portant sur l'augmentation du prix du sucre moo daal di jóge donc ci ministère du commerce donc de 600 à 625 francs le kilogramme noonu la daal di génne waaye conséquence ñu gis mooy dafa di ñàkk rek ci ci marché bi et puis une hausse des prix plus tout cas li ñu homologué ndaxte da ngay dem ci ay bërëb yoo xamante ne dañ koy jaay à 700 mm-hmm. francs CFA le ci yenn association consommateur ni ku mel ni SOS consommateur ñoom ne neen euh, bu ñu xoolee loolu yëpp dafa mel ni euh, mm-hmm. benn enveloppe bu juróomi milliards ci suñuy koppar la at bu ne bi nga xamante ne consommateurs yi seen wàllu bopp euh, ñoom ñoo koy supporter alors association consommateurs yi ñoom c'est l'indignation ku mel ni maître Massokhna Kane justement président de SOS consommateur nee na moom le prix du sucre moom yi mu jot a gis mooy ci yenn région yi jusqu'à 650 francs CFA lay lay lay atteindre mu di nag benn décision buy euh, buy surprendre ndaxte euh, président de la république mu ngi door a def ses adieux à ses ministres ak euh, ak ñëpp ñi nga xamante ne fu mu nekk nii xamuñu fan la ñuy fan la ñuy situé wu donc mu ne nag lan moo tax bile bile yàkkamti hein ci ci ci période bi nga xamante ne c'est une période assez suspecte noonu la ko daal di qualifié et puis Momar Ndao président ASCOSEN ci journal Le Quotidien la daal di joxe bile déclaration mu ne pour ñoom waa waa ASCOSEN c'est une Euh, une sorte de sabotage hein, de la part du de la ministre euh, du commerce ndaxte fu mu nekk nii ñu ngi waaj a installer benn euh, équipe gouvernementale bu bees donc nee na fu mu nekk nii daal ce n'est ce pas le moment de prendre des arrêtés de ce genre soxna Fatick. aywa ñu des ba tey ci suukar si. Mhm. Marcel ñëw ci détail yokk bi et puis lan mooy conséquences yi. voilà donc conséquences yi c'était justement pénurie bi comme comme comme ni ma ko waxee donc fu mu nekk nii mu ngi mu ngi mu ngi ñàkk donc. Euh, ñu ci bëri boo leen laajee loolu lañ lay loolu lañ lay wax waaye ñu gis na ne kii di euh, Momath Cissé euh, nekk vice président Ascosen ci ci Sud Quotidien moom tamit la daal di joxe yi les kaddu nee na daal c'est avec amertume que la ñu constaté ne ministre du commerce mi dafa jël benn arrêté bi nga xamante ni dafay fixer par homologation le prix du sucre moom nag moom kese moom moo ko jël concerté wul ak kenn mm-hmm. loolu waral ñuy ñoom daal ñu ngi boobu les démarches en tant qu'association de consommateurs ñoom neneen leen ni de près ni de loin à la décision de la de la jiitu réew mi mu daal di annuler bile hausse ndaxte entre août 2021 et février 2022 nee na le prix du di jàll de 500 francs euh, CFA yegg ba 625 francs CFA mm. nee nag fu nii compagnie sucrière sénégalaise moom mu ngi bénéficier ñaari euh, augmentation du du sucre sans que l'on puisse savoir les tenants et les aboutissants donc euh, lan moo lan moo motivé boobule boobule décisions le demi-aveu de l'État bu ñu sukkandikoo ci Oumar Diallo nekk euh, directeur du commerce de l'intérieur nee na fu mu nekk nii euh, mënuñu éviter euh, yokk bi ñu yokk sukkar si vu compte tenu de l'évolution de la situation waaye tamit lu jëm ci wàllu compagnie sucrière sénégalaise ñoom dañuy bañ rek li nga xamante ni moom mooy évolution du cours des intrants bi mu daal di koy impacter mm-hmm. donc notamment l'engrais engrais bi nee na dafa jàll de 100 à donc mu depuis 2012 ñu di bloquer euh, prix du sucrier depuis 10 ans, alors que les facteurs et de, coûts et les facteurs de production sont passés du simple au double. Donc le coût de l'engrais, par exemple, est passé du simple au triple. Donc pour ne pas justement que lor qui dit industrie locale mi di CSS, donc il était nécessaire que nous réajustions euh, njëgu euh, prix euh, suukar boobu noonu pour que au moins CSS mën a jaay produit et offrir au Sénégalais les quantités nécessaires sur le marché. loolu di kaddu l'intérieur soxna Fati. aywa ñu dem ci beneen question vu tout ce qui se passe on a envie de poser une question. est-ce mhm. que amul benn deal derrière cette augmentation. en tout cas bu ñu euh, bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne euh, moom mooy euh, bon d'abord on va commencer avec la courbe de l'inflation on est carrément à l'ouest apparemment <laughs> soxna Fati en 2021 ñu njëkkee ci boobu donc les prix des produits de de consommation ñoom dañu daal di yokk bu ñu sukkandikoo ci waa ANSD. Mhm. et puis depuis 2020 ci yenn bërëb yi ñuy

ñu ko laajee fu mu nekk nii lan moo waral euh, yooyu les augmentation li muy joxe comme euh, comme premier euh, mm. prétexte mooy situation sanitaire bi nga xamante ne mbas bi da ci da ci dal bu baax a baax mm. bi nga xamante ne dafa perturber la chaîne d'approvisionnement te muy provoquer benn hausse exponentielle de l'huile du sucre du riz du maïs ou encore du blé donc ñu xool tamit lan la ci voilà donc Khadim Bamba Diagne moom mi nga xamante ne économiste la ci RFI ko doon la doon joxe yi mm. les kaddu les raisons de la hausse euh, de ces prix-là nee na nag euh, état dafa daal di jël décision restriction depuis 2020 ñu daal di laaj seen kër. Mhm. Euh, baisse activité économique bi daal di am conséquence baisse des recettes ci ménages yi waaye aussi pour l'État donc le seul instrument valable que l'État peut utiliser aujourd'hui lan la mooy augmentation de l'assiette fiscale. Mhm. nee nag bu ñu yokkee taxes yi commerçants yi ñoom dañuy répercuter cette augmentation sur les prix ci produit yi ñuy vendre soxna Fatick. Eh et l'État jëloon na quand même ay mhm. euh, tere li nga ne mooy yokk bi mais euh, na. c'est ça donc euh, ñu gëstu yenn yooyu mu di suspension de certaines taxes douanières comme la baisse de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits ci yenn produits mhm. suspension de la taxe conjoncturelle à l'importation appliquée sur le sucre sur raffiné jusqu'au octobre dernier en tout cas la ñu la ñu appliqué woon boobu les mesures niveau de la TVA bi ñu ngi maintenir à 0 pour cent quand même sur le riz euh, importé et puis la TVA sur la farine de blé jàll na de 12 à 6 pour cent de même que sur l'huile végétale euh, importée donc président Macky Sall en conseil des ministres ay euh, ay directives ñi rek ñu jël justement ay mesures pour fexe ba consommateurs yi lu ñuy yëg nekk nii les les prix la hausse des prix des denrées de première nécessité daal di daal di rassembler benn comité national sur les prix loolu waral kii di Daouda Diallo donc ministre des des finance daal di déclaré euh, samedi bi passé ne que pandémie du Covid donc on on surtout sur cette pandémie du Covid 19 ne en tout cas moom la ñuy comme prétexte moom daal moom mooy daal di dérégler euh, lu bëri waaye def nañ maintenir les prix à des niveaux euh, supportables pour le consommateur sénégalais c'était 46 milliards nee na daaw waaye récemment chef de l'État dafa daal di instruire ngir ñu liggéey ci benn nous avons décidé de travailler gi. Hmm. dina arrangé ñu bëri nag. sama genre yi ceeb ak diwlin. dina arrangé borom kër yëpp Marcel du yow donc je te rassure. et puis euh, Chérif xaw ma na ngay xool njëgu njëg yi ci sa téléphone xaw ma lan la tey eh, may ko dara Chérif. Fatou Kiné xam naa mi ngi xool prix yi euh, li Marcel doon wax je pense mu indi muy actualité je commence par toi Fatou Kiné gis nañu le panier de la ménagère fi mu ne nii léeg-léeg nga yëkkati leget gi